Imam Ahmadou Makhtar Kanté ñu ngi lay nuyu. maa leen di ñu am mbégte dalal ci matinalu tey bi euh, di door mm-hmm. euh, waxtaan bi imam ak euh, lu soxal avortement ci Sénégal gis nañu jamono yi ay parlementaire di ay député daal di yenu xeex bi ginnaaw organisation de défense de droits des femmes ak yooyu di wax ne jigéen bi nga xam ne wayjuuram wala mbokkam wala keneen sax moo yegg ci kawam mu jëlee ci ëmb war nañu ko mun a may mu dindi ëmb boobu yéen ngeen wax ne loolu euh, du ngeen ci ànd ndax islaam nanguwu ko est-ce que islam am na lu mu waajal jëm si euh, cas de viol yooyu wala inceste yi waaw l'islam li mu wax charia li mu àtte mooy ne ëmb moom kenn waru ko yàq lu dul xam nga sax wax bi sax neexul dégg yàq ëmb yàq ëmb yàq bi rafetul sax neexul sax dégg parce que du lu ñu war a yàq lu ñu war a defar la donc bu ñu demee ba naan yàq ëmb dafa war nekk loo xam ni euh, maanaam lii moo fi sës parce que bu ñu naan yàq ëmb rek ñaari bakkan ñu ngi fi parce que ndaw si bu ëmbul woon dara ni ko wolof di waxee war na lor waaw ah, donte ma sax du lor ah même waxin wolof boobu ànduma ci du lor du lor lu lu rafet la lu mu ëmb mhm. euh, léegi nag dañ ko war a toppatoo le fait que muy wàccoog yu mel noonu loolu dara nekku ci dafa dafa jaadu ci ci ku ëmb mais du lor boo seetee ba seet mais alaakulli ñaari bakkan ñoo fi nekk bu ko defee nag léegi l'islam bëggul ñu faat benn bakkan la vie est sacrée kon bu nit ñi foog ne fi mu nekk nii affaire gàncax la ñuy wax wala mala bakkanu doomu aadama moo fi nekk bu ko defee fi mu nekk nii technologie xarala dafa soppeeku ba boo mën nañ wane ci biiru jigéen bi nga xam ne lii mi ngi dund même buñ ci defagul ruux boobu ñuy wax sa cent vingt jours mi ngi dund boo ko jamee mu daw bokki nga gis bët yi gis cër yi nga xam ne lii mi ngi dund loolu nag di dund du gàncax buy dund buñ ko bàyyi mu dund nit lay nekk loolu bokkul ak loo xam ne suñ ko bàyyiwoon mu dund day nekk garab wala wala wala wala ma donc nit kooku su demee nag ba nga xam ni ëmb bi indi na jafe-jafe xam nga dana indi fausse loolu mooy jigéen di jékki-jékki rek mu imbi te tayu ko loolu day am parce que bakkan bi yàlla dogal mooy ne mooy judd mooy judd bi yàlla dogal ne du judd boobu mën na nekk fausse couche boobu jigéen bi tay ko mënu ci dara mais pour ñu tay ko daal ne dañuy faat benn bakkan loolu moom il faut mu tegu ci atte bu leer te ci la war a tegu lu tegu ci bànneexu ko jigéen ki wala naqaram parce que bu doon loolu la man mi tey lu ma def rek ma génn ne damay fajal sama bopp est ce que xam nga tey ji yow loi mayu la même tey ji yow bu nit ñëwoon rey sa doom wala sa baay wala sa yaay sax loi mayu la nga wut sa gànnaay ne da koy rey da ngay dem ci loi bi loi bi mooy dem enquête ba jàpp ko ba seet est ce que kii moo ko def et cetera kon tam bakkan noonu su ko defee jigéen bi su demee ba ñi nga xam ne ñoo koy saytu kon foofu laa waxee ni islam du mës a ànd ci li ñuy wax avortement euh, médicalisé mais avortement médicalisé dañ koy rafetal mais liñ ci jublu mooy jigéen bi wax ne dama bëgg imbi dama bëgg yàq sama biir mais nag dama bëgg ñu yóbbu mu hôpital toppatoo ma ba ma yàq ko dellu sama kër dara du ci fekk loolu mooy avortement médicalisé am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi coow am na sax ñu may attaqué man soxlu xew kon li xew mooy que avortement médicalisé tur bi la ñu rafetal mais mooy jigéen bu wax ne man dama bëgg yàq sama biir en fait loolu lañ jublu association femmes yooyu di wax loolu lañ jublu moo nekk ci seen documents yi mais nag bu ñuy waxtaan ak nit ñi pour nit ñi mën koo dégg ci la ñuy jiital naan waaw euh, viol ak inceste euh, lañ ciy jublu mais viol ak inceste islam du nangu parce que loolu mooy euh, cosaanu ëmb bi cosaanu ëmb bi du tax ñu faat bakkan ci l'islam loolu na leer metti na loolu nag inceste doy na waar lool nu mu tuddati viol doy na waar lool mais du tax islam wax ne euh, jigéen bi am na sañ-sañu ñu yàqal ko biiram wala moom ci boppam mu yàq biiram parce que dañ ko violé wala inceste dañ ko war a jàppale d'abord fexe ba loolu wàññeeku ci société bi mais association femme yi ni ñu koy waxee da ngay yaakaar ni fi mu nekk ni sax góor yëpp ñu ngi tëddee seen i doom yu jigéen subhanallah hmm. ak kii am na ay benn benn dëgg la mais pour pour communication il faut ñu ngandal ko noonu mais dañu war a fexe ba surtout li ñuy wax sensibilisation ba loolu wan fee néew ku mu dal tamit li ñuy wax affaire accompagnement ay mesures d'accompagnement surtout psychosocial kenn bañ ko boddi kenn bañ ko xas ba pare ñu boole kook ay ay ay ay psychiatre boole kook mel ni religieux ñun imaam yi ñi dinañ ko xam li ñuy wax et cetera. Mm-hmm. mais yàq biir moom islam da ko nangu lu dul fekk jigéen bi ëmb euh, fajkat yi pas jigéen bi li mu bëgg moom wala li mu ragal. Mm-hmm. fajkat yi ñooy taxaw daal ne kii suñ ko bàyyi ëmb bi mën na cee loru ba bakkanam sax mën na cee faatu. boobaa nag ñu ne ah jigéen bi nga xam ne nag moom mu ngi dund te ëmb mhm. moom nag la ñuy jiital kon nag léegi nañ dindi ëmb bi kon loolu day nekk solution dernier dernier recours mhm. mais pas ay euh, grossesse non désirée dama dem ba gis ne lii bëggatuma ko wala ni ma ko ëmbee neexuma déedéet islam du atte ci loolu metti na loolu mais nag loi moo mel noonu parce que suñu ubbee buntu boobu rek day indi yeneen ak yeneen ak yeneen au delà de viol ak inceste jigéen sax ci biir sëyam mun na ëmb mu ne bëggatuma ëmb bi nañ ko dindi parce que loi bi may na ko. Hmm. kon yow da nga daal buntu la wala lu ñu mbubboo rek pour yegg si euh, mën di. Euh, wala ñu mbubboo ko wala benn jigéen ñëw def lu ko neex après ñëw euh, daal ne dañ ma violé nañ ma dindil ëmb bi wala que dañ ma inceste nañ ma dindil ëmb bi ñu dem ba mu yàgg ñu enquête ñetti at après. ñu gis ne ndekete dara du ci dëgg ñu def ay ADN yëpp gis ne ndekete yow du dëgg hmm. benn faram moo ko ëmbaloon et cetera donc moo tax islam du du nangu mukk ñuy woyofal ubbi buntu yooyu ñuy woyofal di ubbi bunt yooyu di faat bakkan fœtus bi ci turu euh, grossesse non désirée grossesse imposé ak affaire euh, avortement euh, médicalisé donc islam du ko nangu léegi problème société bi nañ ko réglé ak niñ ko war a réglé li war a jaar ci waxtaan ñu waxtaane ko li war a jaar ci nangam ñu def ko mais nag tëb tëb tëb rek nañu may jigéen ñi ñu leen di avortel France tey ji ñu ngi avorté deux cent cinquante mille par an xoolal lool te pourtant am nañ contraception pourtant ku mu neex nga sëy góor bu la neex jigéen bu la neex. Mm. kon léegi avortement daanaka mën nga wax ni contraception loo xam ni euh, bakkanu jigéen bi daf cee xam nga fi mu nekk ñi dañu naan avortement médicalisé liñ ci jublu. Mm. ñoom AGS ak yooyu mooy euh, jigéen bi bu fekkee ni affaire bi attanu ko mën na koo dofloo wala mu jur doom rey ko. Mm. mais tey ji France ñooñu di avorté yooyu yëpp dalu leen mais am nañ ci deux cent cinquante mille par an. moo lay wan ni boo xasee ba ubbi bunt bi mënoo tere kenn def lu ko neex. Hmm. moo tax islam du mën a nangu lool. d'accord léegi euh, gis nañu tamit ne euh, ñoom euh, ñooy jokkoo ak député yi yenn député yi sax daanaka fi mu ne ñoo daal di porter bi léegi yéen ñi nga xam ne yéen a taxaw ci li islaam wax di ko fësal di wone seen ñàkk ànd ci loolu ndax yéen a ngi jokkoo ak assemblée nationale wala kilifa yi nga xam ne ñooy dogal pour que ëllëg aussi lépp lu ñu mën a décider ngeen am ci seen kàddu. waa ñi ngi jokkoo ak ñoom mënta ñàkk donte woon sax jokkoo bi man gis naa ni woyof na daal des na mais nag jokkoo boobu sax euh, mësta ñàkk boo seetee ba seet naa gis nga tey boo xoolee histoire histoire Sénégal ak sëriñ si ak état bi ak député yi euh, di nga ci gis ne loolu doon na am ginnaaw ga nag gën na dellu ginnaaw di di wàññeeku mais loolu baaxul euh, ma jox la ci benn misaal rek am na cassette boo xam ni audio boo xam ni ñëpp dañ koy faral di déglu presse bi di ko tegaat Euh, boo xam ni sëñ Abdou Aziz Dabakh euh, rahmatullah aley euh, mi ngi ci naan député boo xam ni loi bu ñëw rek nga voté di ko layoog yàlla ni ngeen xool loi yi lu ci dëppoo ak l'islam ngeen voté ko lu ci dëppoo ngeen bañ ko audio boobu mi ngi fi di circulé xam nga kon kooku Abdou Aziz Dabakh kon gisoon na importance su député yi li ñuy voté ñu xool ko mm-hmm. te boom bu waxee ñu xool ko li mu ci jublu mooy ñun lu dëppoog sunu valeur sunu l'islam parce que réew mu nekk tamit say valeur nga war a voté hmm. kon nag euh, loolu gaa yàgg na fi am gis nga code de la famille Senghor forcing la def dëkk bi naroon na fi tàkk Cheikh Gaynde Fatma Baye Niass ak euh, euh, foog na Abdou Aziz baax ak foog naa cinq la ñu woon ñoom ñëpp c'est Nourou Tall je crois dañu defoon benn comité wax Senghor que ni code de la famille bii mënul jàll parce que dëppawul ak charia te julli ñoo fi majorité Senghor na leen amul leen problème dinaa dina bàyyi xel ci loolu nax leen jàllale code de bi ñoom loolu rëccu nañ ko trop donc xeex boobu diggante diine ak ñi fi nekkal diine ak affaire assemblée nationale yàgg na fi mais nag dafa mel ne at yi mu passé nii dañ cee xaw a dellu ginnaaw donc léegi war il faut ñu dellu soit ci loolu parce que fa ñuy voté loi yi boo fa demul ba ñu bàyyi ci xel ci luwaay yi li l'islam bëgg ci réew mi kon doo bàyyi ba ñu voté ba pare nga naan lii rafetul ci réew mi lii baaxul loolu moom ñëpp dañ ciy d'accord hmm. association yi nga xam ne dañuy dem ci assemblée nationale mooy li ma wax sànq boo seetee ba seet bu ñu taxawoon ci mbedd mi fii woote du ñu am fukki nit yu ñëw parce que du ñu ay kilifa diine kenn jiitalu leen ci dara ñoom daal dañoo jàng la ñuy jàng ñëw am ay xalaatu tubaab yu nekk seen bopp ñuy wër mais ñu leen di financé ñu def ay plaidoyer dem di gis député yi ak ministre yi ba ci sax ak président ñu recevoir leen ah ne leen dañu bëgg tel loi voté kon ñu voté loi yoo xam ni ay groupe yi ndaw ñooy dem bu ñu leen wowoon ci penc mi kenn du ci ànd ak ñoom ñoom ñooy dem foofu di voté ay loi barina ay loi tey yoo xam ne boo demoon ci penc bi penc bi duñ ci d'accord kon léegi loolu il faut ñu seetaat ko ba ci protocole de Maputo bi ñuy wax ñoom association des femmes naan wéy Sénégal dafa signé protocole da ko war a appliqué waaw mais ba ñuy signé protocole boobu buñ ko indi woon ci penc mi fii eh, kilifa diine duñ ko nangu jullit yi duñ ko nangu kon nag effectivement léegi jot na euh, ñun imaam yi sëriñ si ustaas yi ñu gën a jege euh, parlementaires yi euh, gën leen expliquer lu xew surtout ci affaire avortement bi ba ñu bañ faa voté loo xam ni euh, baaxul ci askan bi baaxul ci diine ji. d'accord léegi ñu wax imam ci lenn loo xam ne itam mën naa soxal jullit yi surtout yi nekk ca France ndax réew mooma euh, dafa daal di jël dogalu génne ci réewam euh, bépp étranger boo xam ni polygame nga maanaam da nga am lu ëpp benn soxna loolu yow mun na wuute bien ak islam ndax maye na góor am ba ñeenti soxna lan nga ci xalaat yow en tant que jullit ak imam. waaw loolu dara bettuma ci ah te te

loolu mooy problème bi su ko defee nag lépp loo xam ne day jëmmal l'islam rek dañ koy xeex xoolal tey ji jigéen bu muuru tey France mën nga sol lu la neex doo gêner kenn xale bu jigéen bu muuru ñëw ci assemblée nationale dëkk bi bëgg a toj laa la wax da ngay foog ne dafa indi woon fetal bi muy ñëw ndax lan dafa voilé donc mii noonu tey jigéen France nga am sa doom ñu def sortie scolaire parents yi war a ñëw ànd ak seen njaboot tey boo nekkee jigéen nga muuru ñëw ñu ne la dellul jigéen bu muuru du fi ñëw di ànd ak ñun xoolal loolu ah léegi tamit nga gis ne ministre de l'intérieur bu yàggul mi ngi doon wax naan ku ñu gis ne ci jëbi xam nga julli buy julli lu bari te yenn saa yi nga julli foo xam dafa wow ak yu mel noonu mën na def lu mel ne luy ñuul noonu ci sa jëf léegi nag ñu ne surtout ko am der bu weex ñu ne loolu ku mu feeñ ci moom rek nañ ko surveiller xam ne kon comme day julli lu bari dina fi ma a poser bombe terroriste la mën a doon xoolal wax boobu donc mu ngoog ba pare en même wax ci seen constitution naan diine daf fi ñoŋ maanaam dañuy respecter Euh, la pratique religieuse loolu du dëgg parce que bu fekkee lu l'islam bëgg ngeen ne non non non àndul ak république bi mais en même temps tamit libre ngeen pratiquer seen diine loolu mooy hypocrisie bi ak contradiction bi donc polygamie xam nañu tey daanaka jullit bi nekk Europe ñoo koy def loolu moo tax ñu attaqué ko mais euh, fi mu nekk nii euh, maa ngi xaar nag français comme dañu ne dañuy expulser les étrangers waaw léegi maa ngi xool nag français de souche gis na tey ji bu amoon benn Jean xaw ma lan bu bu nekk jullit te papam nekkoon noble foofu ci France yàgg fa mu takk ñaari jabar duñ ko mënal dara laa la du mariage ko lu tax nga wax ko mu ne ma wëy ñaari jigéen mën nañu sëy na déedéet ma ne ko mariage du mariage pour tous mhm. mu ne ma wax nga dëgg boobu moom dañ koo dàq ma ne ko voilà léegi nag lii wane na ko encore kon nag jullit yi ñoo war a organiser wu jël seen àq euh, ba pare tam euh, li nga xam ne diine l'islam daf koo maye keneen ku ko rafet rafetluwul sa droit la mais nga may julli di ñu pratiquer seen seen diine bi euh, mhm. justement imam foofu laa doon bëgg ñëw bu fekkoon ne am nañu xëy na benn autorité musulmane boo xamante ne moo ëmb julli yëpp si àdduna bi di sàmm seen àq ak seen yelef mais aussi sàmmale leen li nga xam ne seen diine moo leen ko may est-ce que du woon doon saafara ci ci ci jafe-jafe bi compagne par exemple gis nañu église bi am nañu Vatican tey xëy na bu problème bu mag amoon concerné euh, chrétien wu àdduna bi dinañu dégg pape mu wax mais est-ce que du julliti loolu ñu ñàkk di kilifa gu leen jabote ñoom ñëpp moo indi euh, yéen yu mbir. waaw loolu loolu dëgg la loolu dëgg la jullit yi le fait que ñu ñàkk am kàddu boobu noonu dëgg la parce que donte woon sax organisation yi am na tey boo jëlee ligue islamique mondial nga jël. organisation de la conférence islamique léegi sax conférence islamique yooyu kenn du leen dégg waaw euh, mu ngoog bon xam naa dinañ def ay communiqué léeg-léeg et cetera voilà mais bon euh, li ci ëpp daal affaire ay communiqué yu jëm rek ci ay culture ak yooyu mais yu jëm ci défendre intérêt musulman yi effectivement am na ay temps gënoon na am doole na gis nga temps wu euh, roi Faysal moom temps moom sax moo créé woon conférence islamique moom temps amoon na doole bu baax ci affaire u Palestine ak affaire yu bëri minorité musulmane mais après Euh, affaire dellu ginnaaw ay nooseur léegi ay nooseur ñoo ñoo jiite réew réew jullit yi ak ñoo xam ne li nekk seen bopp yi ñoo tubaab bi liñ bëgg ñoo moo bokk moo ñoo bokk ñoo tubaab bi liñ bëgg ñoo bokk ñoom seen bopp sax gëmuñu yenn valeur islam yi yooyu yëpp question bu complexe na tey boo jëlee tey pays musulman yi da tey nga jël Sénégal jël par exemple Tunisie jël ba ci Maroc ak pays yu bëri tey ji mais boo xoolee ñi leen jiite mais ñoo tubaab bi doo gis doo gis différence ak ñoom ci côté côté liñ gëm ci affaire valeur donc du ñooy dimbali euh, l'islam léegi kon l'islam en plus dafa am xëccoo bu am boo xam nekk nii neexul régler parce que tey chiites yi côté ànd ak Iran ñi ànd ak Turquie ñi ànd ak Arabie Saoudite pays du Golfe bi loolu tamit moo jaxas situation donc loolu moom je reconnais que difficulté la tey jii pour jullit yi am benn kàddu nga xam ne yu mel ni fu mu mën a am ci àddina bi mm-hmm. xoolal par exemple Rohingya itam bi mu amee bu Erdogan génnul woon dox ci kon ñu rey leen ñoom ñëpp mm-hmm. pourtant yeneen pays musulman yi ñu ngi ne cell noppi xoolal tey Palestine mm-hmm. ngi nii ñoom ñëpp dem di juboo ji ak ak États-Unis nar a boppam xam nga pour lan hmm. c' est pas pour l' intérêt de la Palestine c' est parce hmm. que dañu ragal doole Iran ah. léegi nag comme ça États-Unis ne leen ah, naa leen protéger contre Iran hmm. mooy doxee noonu bon dañu war a nangu ne loolu euh, faiblesse la jéem a liggéey euh, mais nag comme ni ma la ko waxee tey par exemple boo jëlee OCI pour am benn kàddu yombul de xam nga lu tax kon ni ma la ko waxee tey OCI xam nga ñen ñoo fa nekk ñi fa nekk président dëkk yi ñoo leen di ñoo leen di diriger ñoo quand li quand benn président boo xam ne moom ci boppam affaire tubaab la gëm suy nommé kenn pour mu dem représenter Sénégal aussi wala Tunisie et cetera kan lay nommé benn waaye boo xam ni yooyu la gëm moom la fay nommé au lieu que mu nommé fa benn imam bu xam l'islam boo xam ni bu demee mais kon loolu mooy difficulté bi actuellement même ni ñuy nommé ña fa nekk ak ña fa nekk yan valeur la ñu war a défendre moo tax tey ji gisoo Erdogan rek nga gis mu tontu euh, Macron te Erdogan lu tax mu mën ko parce que fi mu jaar xeex ak l'islam xeex ak kémalis yi fa nekkoon ba ne cocc ci nguur gi léegi fi mu nekk nii am na doole mën a taxaw wax mais loolu yombul de loolu ay ay ati at la laaj et cetera mais même église bi ngay wax nii. Mhm. dëgg la am nañ benn kàddu église mais bo <laughs> mais boo seetee ba seet tey euh, église euh, day wax waxam. Mhm. mais européens yi ñu ngi def la neex. Euh, faale wu ñu waxu église donte woon dañ naan nii rek respecté nañ ko yooyu donc diine ci boppam mooy dellu ginnaaw par rapport ak ñii nga xam ne ñoom gëmuñu dara ba pare yore yore yore koom bi ba pare yore euh, yore politique bi. Hmm. loolu mooy jafe-jafe bi. jërëjëf Imaam amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi ñu ngi lay gërëm. jërëjëf ñu yendu jàmm.